bi ak euh, Rokina euh, c'est la pensée du jour ah alors euh, bis bu jot ak baat wala phrase wala ay kàddu yoo xam ne daf koy indi ñu def ko hashtag et puis waxtaane ko ci Facebook bi ak ñun nekk ci plateau bi. waaw Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek tey real talk bi lan la. l'amour n'a pas besoin d'être parfait il a juste besoin d'être vrai xam nga ni que lundi mardi ak mercredi autant pour moi dañuy waxtaanee mbëggeel alors moo tax tey loolu lañ leen àndil léegi gëm naa ni que comme ni ma ko waxee mbëggeel daal moom warul warul net mais na dëggu loolooy loolooy kàddu bi ci olof. alors maa ngi xaar seen avis et commentaire ci internet bi. rek ñu jàllale ko. mbëggeel warul. mbëggeel warul par exemple parfait ni ñuy waxee parfait ci olof. déedéet mat mooy. complet complet. laaj ko nan lañ koy. géwélee plus simple ni ñu koy géwélee. mooy warul ñàkk défaut défaut tam français. en français c'est quoi la phrase. Euh. l'amour n'a pas besoin d'être parfait il a juste besoin d'être. mbëggeel warul mat sëkk sax la waaw mbëggeel warul mat ah. warul mat sëkk. non du mat mat comme ni ko waxee complet la. Hmm. soxlawul lépp liis de laa bëggoon a liis tam français la parfait daal mooy parfait. maanaam daal ay di ngeen dem ci mat ñagas ñagas. la <laughs> <laughs> mat la wallaay mat la wallaay mat la tamit olof olof a toog nag. ma tax jàppal la tonton Massamba moo ñu il faut m'appeler un mois à l'avance envoyé ngeen envoyé leen ma mail d'abord et appeler ma secrétaire. non si on l'appelle il va nous dire. <laughs> dinañu donc mbëggeel en tout cas ak ak li ci li ci naa wax tey loolu defe naa ku nekk war na cee mën wax parce que ñun ñëpp ko dund waa ah. mbëggeel leen la ma doon doon être humain la di nga gis ñu ko doo barke yàlla loolu moom dëgg la danga koy doon kan man loolu la def bon ñu def tour de table ku nekk na ma nettali benn affaire bu ko mbëggeel def mais en fait du du du du par exemple lu spécial wala dara mais ku ci nekk ci ñun dund na mes aventures waaw amul kenn ku ko dund. kii daa toog sama place dama koy yëkkati en fait. waaw damay jóg léegi hmm. léegi léegi ma jóg. lu mu euh, def waaw ku ci nekk ci ñun xëy na dund nga benn mes aventures comme tout le monde ça n'arrive pas qu'aux autres comme nu mu koy waxee. alors euh, comme comme comme comme ban. comme tout le monde j'ai am naa mes aventures non dafa yàgg ba fàtte naa ko non lu metti soo dundaatee lu da hmm. la vent da nga dem a dafa waroon ànd la en hmm. a de problème quoi du tout alhamdulilah ok ça c'est bon Mamadou Ndiaye lu la mbëggeel mu sa def non ah dafa gën a dal d'accord xale Alfi lu la bëggee gis sa xanaa di jooy jooyloo Pape daf laa mos a jooyloo man yow laa bëgg waaw mos sama jooyloo ndax <laughs> sama Serigne Touba waaw sama mi yaa moor léeg-léeg mu tukki sama waay <laughs> ah, tekki naa waay <laughs> la mbëggeel a def jooyloo Pape jooyloo ndax léeg nga ki ki la bëgganteel tukki tukki yu yàgg Pape mm-hmm. waaw nga nekk ci misère bu metti Pape bu metti sax mm-hmm. waaw xam nga ki nga ki nga ki nga bëgganteel foog ngeen di nekk every time every day mm-hmm. léeg-léeg ay dog-dog am mu xëy xëy tukki. waaw man sama mi yamoon xëy na tukki tukki bu yàgg. Mhm. waaw Pape nii laa tolloon ne big bi. donc jooy quoi. jooy naa ex dex mbëggeel lu la mës a def yow. jooy loo ex sa jooy rek. yoo jooy kaw wala wala jooy suuf ah, <laughs> jooyu xol la jooyu xol la <laughs> mais da koy da ngay xam ne rek bon écoute euh, si tu chantes déjà nga jooy ça prouve déjà la personne je pense dans les deux sens ah donc bu méttee nga jooy c'est parce que da nga ko bëgg bu neexee nga jooy que c'est parce que da ko bëgg dans les beaux sens bi bon mooy ki bañ a jooy mm-hmm. pour man donc bëggoo quand tu aimes l'amour rime l'amour rime la la souffrance mais dans le sens que euh, tu. Euh, yenn mu neex yenn saa yi mu naqari. voilà day day neex naqari nga dóor ko rek. man de yàlla ñu yàlla may ñuy jooy. amiin man de maa <laughs> loolu mbëggeel ma sa def Kiara. moi pas de joie hein. pas de joie pour l'amour non plutôt il y a eu des gens qui ont pleuré hein. Ah oui. yeah. il y a eu des gens qui ont pleuré pour toi. Kiara bien sûr. ah Kiara mais yow lan la la def. mais qu'est-ce que ça t'a joué. quand il pleurait qu'est-ce que ça fait. bon ça dépend de l'âge hein. parce que quand j'étais plus jeune c'est un peu genre ah bon. Mais toi là, fais-moi voir comment tu pleures. Quand même. <laughs> mais avec l'âge, ça te fait un peu de la peine quand même. D'accord. Mais après, on passe. Oui. Ouais, c'est ça. Malais. Ouais, jooy loolu rek. nga xam ne man je suis une madeleine. je réponds à mon nom. waaw mais tout le temps nag on prend du recul et après on redevient plus forte man loolu moom. ça a toujours été ma force. parce que des fois bëgg daf lay ñàkkaloo fayda. waaw. ba da ngay def ay affaires yoo xamante ni yow xalaatuloo woon. amul logique. waaw wala doo ko def. amul amul sens quoi. c'est ça la beauté en fait. jooy mbaalu lay merlo mais voilà vous connaissez la chanson non qu'est-ce que mbëggeel Madeleine bee di wax maa ko gën a doon Madeleine man moom waxuma la pleurer mais déprime pendant six mois. waaw oh my God de déprime où je pleurais tous les matins. je comprends ah ah, mais tu sais quoi. Mhm. xam nga soo tolloo si bëgg benn nit. la fin du monde. je vais amoureuse. Mhm. bla bla bla bla. Mhm. et quand on te dit laisse le temps faire son travail. c'est une réalité. effectivement heureusement que j'ai déprimé pendant ces six mois là. parce que sinon monsieur si dafa nekk. ndeysaan man de bëgguma ngay um jooy. macha allah. baalu lay meloo. et je repose et eh, je repose la question à Mamadou Ndiaye ginnaaw bi ñëpp tontoo ba sa xel dal lan la la mbëggeel mës a def parce que ku mbëggeel ku mbëggeel mësul def dara existé wu lan la la mbëggeel mës a def. bon sérieusement déception d'abord. donc c'est c'est c'est c'était très dur. oh moi je sais. si vous voulez je vous raconte la suite. tu nous <laughs> racontes. mais après voilà comme ni ko Madou waxee rek après ça passe et puis voilà nga ma taxawaay daal nga defar plus haut plus fort. man <laughs> de boobu maa ngay jaay. les ah, sites sont là di xaar. bu fi bëggee wàcc noo may def. man de boobu maa ngay jaay. baalu lay. vélo. kii dafa mel fayda. ngay jooy. pied de grue. oh là là de 5 du matin ci buntu kër gi di my God. c'est pas vrai oh c'est trop mignon euh, beaucoup. Oh, souvent <laughs> <laughs> appelé. Hey, sensible. Ça n'arrive pas qu'aux autres. ñëpp la daal de. c'est vrai ñëpp ñëpp ñëpp mës nañu jooy ndax bu yooyu yow la bëgg. waaye déedéet ndax Pape Cheikh jooyam ay jooy Pape Cheikh. baalu lay merloo. jooy Pape Cheikh. jooy bi jeexagul. jooy suuf man de li ci topp teg ko ci nga xool. te li ci topp teg ko ci. léegi. nekkoo leen suñu wéetal. c'est faux. <laughs> Viviane moo ko woyoon tonton mag it en train de comme xel mi dafa dem mu ngi wër ban woy la <laughs> mu may tegal ay jiin leen. non leen du boobu. bu c'était oh. boobu album saxaar si la woon y'avait saxaar si euh, y'avait tamaji. tamaji voilà yow tama yegg si yow tama dégg nga temps boobu euh, mu ngi seeg buuba. <laughs> te buubaa ci ne newoon voilà boobu la tonton mag yokk ko tuuti ñu déglu ko et puis euh, ñu enjoy grâce ak Rokina c'est elle qui nous pousse à parler amour déglu leen ko fi yokkal foofu moo xool yokkal ma tuuti ay te nuyoo Viviane asalaamaaleykum Sénégal ak Gambia yow la kan man Viviane ay te demal di wax lan loo fi woyoon nga ni ma ni maa fi woyoon ni góor ñi dellu si woyaat góor ñi ñàkk ñoo way ay ci léegi may wax lu may bañal wala lan ci kaw nga wala nga bëgg ma bañ lu ma ay ca waxaat ma ko lan nga may bañal wala ku may lan su fekk fekkee bëgg nga ma meen ay sa léegi wax ma ñan ngay waxal li biir su di ñooy seen bi mais c'est quoi le mais mais quand même yéen a ñuy jooy wala ku may lan ndeysaan merloo bari mbaa ku lay merloo fii nag dafay ngéwéle day woy Cheikh Tidiane Ba ñu dem foofu la ñu appelé Aïcha demal ma xool ma ne bàyyi ma Mamadou Bayam nga ne kuy Bayam Mamadou Salifay Bayam waaye ma dem sama yaay Bandeur. tëddal waay ah. tëdd rek ma tëdd. loo bëgg. waaye tëddal waay ma soo ngi jooy. nii laay kale kale. bon ci kanam ñu mayaat leen woy bi un très beau titre ah woy bi dafa neex trop ah. elle est trop belle donc ñu ngi xaar seen ay commentaires ci euh, euh, Facebook bi euh, ñu dem ci comique next bi.